Assalamualaikum, mbokk mi xarit am di jamm ahlul réseaux sociaux di bégué ñëpp ku nekk sa tour ak sa sante hein ah. di bégué tamit wa Allo Dakar bu baaxa baaxa baax tour bi Tafa la ñu gën ma xam ci Tafa Faramaren artiste comédien humoriste wa Tafa Faramaren mom ben xalé la rek bu nekk ci art bi xam nga di doomu gëwël nak ci nday ak ci baay xam nga affaire yi nak dikkel ma depuis xalé bu nekkaan classe sax moy lolu dañuy def ay comédie et tout ama moy lolu ñu dem ba gars yi ràññeen ci loolu comprendre nga tur Faramaren bi nag dara warulu ko lu dul tey balaa ko Seck moom lañ dama ko bëggoon moom ba tey jii dañul dama ko yàgg bëgg xama yàgg ko suivre di ko bëggee boo ko tuddee sax damay mer waaw dem ba di ko solo di solo comme ni muy solo dem ba gars yi ama Tapha Faramaren Tapha Faramaren moo waral tur boobu noonu tey waaw comédie bi moom boo xoolee lim ñu apporté defe naa ni bari na macha allah un an trois mois lañ ci defagum mais gis nañ ci loo xamante ni tey dund nañ 17 ans 18 ans gisuñu ko parce que le fait que nga dox ci mbedd mi sa moroomu góor yàlla taxaw ak yow taxaw loola léegi rek ci bunt bi moo ci mujj dama laa bëgg danga maa neex li ngay def macha allah sa fans la xam nga ay mbàkke mbàkke di la woo ay kilifa xam nga fu nekk xam nga am ci tamit loo amul woon man tey su ma gàddoo caabi nii gaare dugg def émission tey youtube ba ko waral su ma demee ba sunu kër di génn di def youtube ba ko waral di faj samay soxla youtube la comédie moo ko waral donc lim lim def ci ñun bari na quoi macha allah. waaw liñ ci metti moom defe naa ni xama bariwul noonu quoi bariwul parce que gis nit bëgg ko suñu borom moo koy def ci jàmm ñu ngi doo koy commencé mais yàlla dogal na bu dee cent pour cent ñooy ñooy ne ci youtube bi ak ñooy suivre ak ñoo xam tafaa defe naa ni. sama gis-gis man 80 yeb dañuy bëggé dafa des fois nak ñu gis yu luñu ki lo xamanteni des fois nga dox ci mbéd dégg lo xamanteni moy lool loolu du la neex wara ak début tamit xama boy débité sa biir kër du du do do am li nga bëgg quoi à 100 wa mais loolu yëpp nak dañuy comprendre parce que ñom ñorul xam ni mu demee mais avec le temps ñom dañuy nand wa loolu la rek début bi mom mënul ñàkk la la ak yoy non wa loolu mom vraiment day. lu neex la ko day neex ci ñun trop day neex trop parce que xam man booy xool sama yaay au plus bu ma génnee video tey man lu ci guddi gi laa ëpp lu may dugal mais su ma génnee vidéo guddi gi bu ma yeewoo matinal bi moom mooy njëkk a commentaire man bu ma yeewoo génn sama néeg tak moom mooy njëkk a wax ci vidéo ni ma vidéo bi lii war a vidéo bi laa war a fii moo ma rey war a nangam ak sàngam comprendre nga donc mooy loolu dafay neex ci ñun tellement sama papa tamit pareil sama famille ñi ne itali ñoom ñëpp dañ may bëgge mais dafa doon benn fierté ci man boo xamante ni mënuma la wax sax nu mu toll. waa modeste rek parce que man moom dama jàpp ni comme tey avant ñu ciy dugg amaana doxuñ ci mbedd mi romb ñu ne diwa ngi ne kon buñ ci duggee tey ñu romb ñu ñuy bëgge wara ñu ñuy bëgg ñu ñuy taxaw taxawloo genre. damay japp ni du tafa mo len intéressé mais li tafa di def dans sa ka tafa du jaay kenn lo xamanteni manam ki la quoi ñoddi la damay wajé sam bop and ak ñom parce que man déjà man ñom ñi may man ma len ëpp man bara maa mën rek ma dox daje ku may béggee damay fier ah dafa neex quoi waali wa gisante nañ <laughs> wa gisante nañ wa taxaw nañ wax nak yagul nonu mais taxaw nañ wax xama conseiller na ma tamit xamal ma xalé moom boo nekkee ci yoon xama nga di nga dégg lu nekk mais da ngay lu japp fi nga japp affaire yoy nonu xama moy lolu ba jox ma rendez-vous këram sax mais bobu dafa tombeek mu jox mako mercredi mu jox mako samedi jour mercredi la vendredi bi dama waroon dem voyage Maroc mo faussé rendez-vous bobu noonu mais nak ma ngi wacc demat fa ñu tok gëna waxtaan yaatal. wa bo xolé événement boobu noonu tey birthday la mënon nañ ko jël fété ko suñu kër suñu famille ak suñu xarit affaire yoy nonu mais Tafa dafa dem ba. à ce doonatul tafaawu famem war a tafaawu koñam mais tafaawu àdduna la man d'après sama gis-gis parce que fu ne la ñuy jot appel muy village yi Ndar Louga fu ne donc ñooñ noonu tey dañu bokk ci tafaa dañu am part ci tafaa ba tax na ma ni au lieu ma koy feete man seul ak samay nit dama koy génne étaler ko ba ñoom ñi may bëgge hors site ñëw bokk ci yëf yi raison pour la laquelle ñu yóbbu ko ci boîte boo xam ne bu mag la Cabana Club ex tropique pour bépp soppe Tapha mën fa ñëw daje fekke affaire yi dund kook moom xam nga et waaw Kabana club bi moom boo xoolee kii la euh, le 20 décembre euh, pré prévente yi mi ngi nekk cent jours yi moo nekk 2000 francs waaw entrée la quoi noonu la ko sama staff tëralee. waaw maye la maye la parce que boo xoolee sax staff bi avant ñuy juboo ci loolu noonu xaw nañ cee am ay réeroo nañ ko def lii nañ ko def lee. xama ñi ni prix bi dafa tuuti affaire yoy non mais man sama jëm bop man suma sañon bo fatali ko bu baax sama premier événement dama ko defone gratuit man may ko xamanteni bëgg na lepp lu may def rek du du sonal kenn ñepp dañuy ñëw taxaw sétane dem man samay fans xaaruma ci ñom xaaliss xaaruma ci ñom dara wa mais nak comme dem na bam am staff am manager am encadrement ñom liggéey leen taxajuk mais pas affaire de kii comprendre nga raison pour laquelle ñom ñu def loolu mais tepp tepp moom moo gën juret après dañuy laal Sorano ci kàttanu yàlla buñ paree sona Sorano dañuy dem ci kër gu mag bu neexee yàlla. waaw di wax soppey Tapha fépp fu ñu nekk mag ak ndaw góor ak jigéen xama bàyyiwuma kenn di ci woo ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi bëggee Tapha foo mënti nekk le jour bu la ko sa disponibilité mayee ñëwal xama feete birthday yu Tapha ak Tapha gis ko en live sur scène moom ak ay nitam ak ay compagnons ak ñoom musaa gaa yi képp koo xamante ni maanaam yaa ngi bëgg dafa teewal Kabana club nga ñëw ñu ànd dund ko soulager pare ci def shooting photo def lépp xam nga soulager daal dund bis bi waaw loolu laay wax samay soppe yëpp. waaw boobu boobu na parce que boo xoolee sama vidéo kii bi bi ma zee Serigne. ci man xaaral ma yoon bi waaw xaaral ma yoon bi. waaw xam nga jinne yëpp jinne yëpp ma ñëw

waaw boobu moom noo cher maman bi la vraiment. Maguna ya Bab. parce que man maag sama yaay dañu collé wu tellement que mooy loolu man bu may wax ci moom sax mooy loolu maag sama sama yaay daal moom dama dafa dafa sori ci man moo tax non cher maman boobu ba ma ko géwee ba mu génnee avant moo jàll dama toog ak moom di ko seetaan mais dafa jooy man tamit ma jooy raison pour la laquelle vidéo boobu noonu moo ma gën a marqué ci samay vidéo ah dafa mi ngi sant yàlla rek ndax léegi mi ngi gaare <laughs> léegi maa ngi gaare yëngal caabi ñoo moo <laughs> non dafa daal par mois am day day varier rek day varier mais daal ñu ngi sant yàlla no waaye xam nga du ma wax loolu <laughs> du ko wax de. waa di wax di loolu moom boo xoolee jamono ji toll na foo xamante ni maanaam méttitu réew mi réew mi fi mu toll nii man d'après li ma gis en tant que jeune ñaas-ñaasu kanam la sël mu dindiw ko doon na loo xamante ni tey maanaam jeune bu ci nekk boo teelut a préparé sa bopp rek. xama ñaanu mako yalla mais sa muju defena ni dina xaw metti parce que rew mi mo tollu fofu nonu comprendre nga xama le fait que man moom man dama tuki tukki di dem di ñew di voyage mais dem nañ ba ben instant bo xamanteni man bama toge ma gis ni li moy lolu jëmul kër affaire yi taxaw bo kasu kasu kafe sax pour nga nan ko da ngay ñaan fukki xama duñu ko rusa wax ci carrément xaaral ma dem xol sama yefi bop donc di wax tamit jeunesse bi képp koo xamante ni maanaam yaa ngi dund nekk chômeur ci dara tamit parce que lii du ñëpp ko c'est un peu difficile quoi le fait que nga ne ci kanamu caméra yi yombul du ñëpp ko mais képp koo xamante defoo tamit nga jéem dem leneen tane say soxla di nga <clears throat> di nga dimbali sa bopp dimbali say et tout waaw loolu daal laay conseiller jeunesse bi ñu bañ a toog bañ a parce que rek bon quoi waaw affaire yi moom mooy comme ni ma la ko waxee rek fii moom bu ñu fi yegsee bien vrai que ni suñu talent bokk na ci li ñu fi indi mais tamit euh, suuf bu sutantee dañ koo jël waaw am na ñoo xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale di ñu taxaw xam nga lu ci mel ni sama groupe fans club yi xam nga benn groupe la woon mais fi mu ne nii dem na ba trois groupe fans club la te trois yi dafa fees ba ñuy ubbi beneen xam nga di tegaat di tegaat lépp ci loxo pël bu rafet borom euh, caaro yi maam jaara ba bébé jaara linda borom Maroc <clears throat> Malick borom euh, Italie bokk nañ doon ak euh, Babacar doon na ñoo xamante ni dañu mobiliser wu pour jàppale Tafa Faramaren moom na jëm kanam xam nga di ci daj lu nekk nag ci Tafa di gérer ay groupe fans club am di gérer ay réunion wam xam nga lépp ñu koy ñu koy def Tapha des fois day toog une semaine dugg ci groupe bi fans fans yi di mer ñii di kiteeg di def lu ne ñu jël leen ñoom ñëpp di waxtaan ak ñoom Tapha amul jot nàngam ak sàngam ñooñu man aw ma seen fay xam nga sama booy yi ma bokkal ko ñoom ñoom xaw ma sax la laa war a wax ci ñoom waa Faaxlaan xam nga sama gars yi may àndal sama caméraman nawet kooku sama ami d'enfance la woon ñu dem ba ma dugg ci lii suñu borom commencé ñu may fay ma ne ko du ma seetaan loolu dama lay indi ñu bokk liggéey bi man ak yow ma jox ko paaru caméra bi mu jàppale ma nag di ma taxawu ci lu nekk ci côté yëpp yemul ci caméra kese Saliou Diop di la bëgg lu bëree bëri <clears throat> Moussa Ndong Moussa euh, fait des vidéos di sama <laughs> di sama xarit di sama doom yaay nee na day bañ Moussa Ndong mais man Moussa Ndong laa tàmm depuis xale di la bëgg lu baree bari Moussa fait des vidéos sama gaay <laughs> sama gaay sama xarit sama lépp xam ma di ma taxawu ci côté yëpp xam ma di bëgg ñëpp ak sama waa gàlle sama yaay mère Koumba Mboub aw ma sa fay xam nga sama papa. mom tamit xawon na metti au début mais nak ñi ngi doogay comprendre que ni mom daf ñu doon ñaax pour ñu gëna am jom di ko lu bare bari samay mak Khalifa Aida, sukayna xama Modou ñom général Babacar Diouf pako bayuma kenn di bëggee ñep Faye mbay Ana Camara ñep dal ku lim da ngay joom nyep ngi bëggee ñep ñep képp kuy jégué Tafa mbokam xaritam fansam ñep ma ngi di bëggee. wa di kontaane Allo Dakar bu baakha baakha baakha baax parce que comme ni ma ko waxee woon l'autre jour ci beneen télé rek noonu laa koy waxee waat parce que doon na chaîne boo xamante ni tamit vraiment macha allah parce que le fait que koo xamante ni jeune la ne ci affaire bi am na ñu koy béggee mais ñëpp xamaguñ ko comme suñ borom dogal na koñ bu nekk même bu dugalul ci kër gu nekk Tapha mais quartier bu nekk dugal am na ku fa dugal ci xolu Tapha donc yow tey nga jël initiative jël teg ko ci sa kanamu caméra wax loo ko xam loo ko mooy kan jël ko exposé ko kooku amuñu fayam xama di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax xama maam Baara di la bëggee lu bëree bari amuñ sa fay ak DG bi di leen bëggee yéen ñëpp Allo dakaar ci kaw ci kanam ci kàttanu yàlla